ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark x di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak ma bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci sambi junni sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien بعد العزبلة وبعد البسملة وبعد الهمدلة وبعد الهوقلة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه خير خديمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين li ma bëggoona wax njaboot gi rek moo di que fi ñu toll nii silence total la bëgg waaw ndax jamono bu nekk ak limu laaj te yi nga xam ne moo xew ci xale yi bëgguma kenn ku ci xalaat ni njiitu réew mi dara la ci mbaa ministre de l'intérieur bu bees bi dara la ci déedéet état dafa yore ay pouvoir am pouvoir exécutif législatif judiciaire ku nekk di def sa liggéey man wax loo ma kenn dara gis ngeen conférence de presse bi ma naroon a def dama koy bàyyi ba jëmmi jamono waaw 31 décembre bi maa ngi leen jarul ngeen koy waajal ndax itam xel dafa baax yéen xam ngeen ni jamono yi ñu nekk ñëpp xam nañ ni jamono yi nekk ci confinement yi yépp comportement yi nga xam ne yu bokkul yi nga xamante ne bi xew na ci sunu biir waaw nga xam ne bu fekkente ni état bi nee na nangam nañ doxalee nangam citoyen yi ngeen gis ñun ci suñu wet ni mu ciy demee waaw nga xam ne bu dëgg bu fekkee dëgg rek la ñuy wax maanaam ñun ñoo ko ci respecté wul ci li ñuy wax ñoom ñi ñëpp dañ ko respecté te loolu yëpp ñu koy baal maanaam dëgg bu ñëwee da ngeen koy ñeme waaw ñii seen liggéey la ñuy def judiciairement nañ def seenu liggéey man wax loo ma kenn dara waaw chef d'état bi itam du ci dara ñee ci seen liggéey la nekk ma loolu daal laa leen di wax xale yëpp laa koy wax képp ko ci xamante ne bii nag nekk nga di law law yi wax leneen yoon ku ci ñemewul kaso waaw gis ngeen man nii maanaam damaa bëgg a dugg ci kaso bi waaye ku tedd ki nanguwul waaw ki ma jaar du ngeen fi jaar quatre-vingt-quinze fii laa ne ma fu ne ma lu ne ci lu ma def ko bëgg dugg ci bi ku tedd ki àndu ci waaw ba fii may wax ak yéen ñiy dugg kaso yëpp man la ñuy duggal boo xam dañoo tooñ moo xam tooñuñu loolu leer na nañ buñ toll ne loo ma kenn waaw waaw man maa wax leen ñoom maa leen wax ni ku tooñ ku tooñ nañu koy yar <laughs> xanaa tey ñi ma yaram mooy ñi doon joxe seen i doom rek waaye seen doom yi nag ñoom état <laughs> man nañ leen yar ak daara yi lool la waaw waxloo ma kenn dara daal képp na ku ci ñemee kaso kaso baa ngi nii waaw moom ku ci wax lu jar ñu jàpp la bu ñu la jàppee ñun ñëpp war a dugg kaso amul tooñ amul bañ a tooñ murit bu ci goree ku tedd ki wax nanu ni li mënu jëleel ci tubaab yi bu ci kenn génn kaso wa salaam